você se você é Korea. Right, so é again, Bursa Azizai Samabai. Bursa ni Banjai Moy Samabai. Bursa ni Babakar Moy Samabai. você Masata Moy Samabai. Wala Bay Ali não Samabai. Say, ngir sa yaay. Ndax sa não bàyyi na fi way Eu não sei se você Loolu dong la am na wax. Nga ko dégg. Soo demee nga sëy du sa yaay boo sëyee asbilaay sama baay ndax boo sëyee asbilaay sama baay doo toog fenn loolu laa leen ñaan yéen it maa ngi leen di ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad mi ngeen yàlla boo leen demee na ngeen téye xam naa ne wax ji moom bu yàggee rek bàyyi mais sax du du ko woon du bàyyi yàlla nafal ko cat bi jaasir wi sallallahu alayhi wa sallam daanaa dégg ba aale muy wax ni jigéen benn sikk rek la am mm. mooy dëgër bopp a tabaarakallaa mu ne ñaari way dencante yi yaay bu ci amul rek mm-hmm. sëy ba mën naa ci ci borom këram mm-hmm. Mm-hmm. fi mu toll nii nii ginnaaw bi di waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp bis ni ki tey teggeekul muy génn ci buntu kër bi teggeekul noonu mu teggeekoo ci ñoom nag noonu yéen a war di diisoo moom di communiquer ko moom waaye kër gu naqari dugg ci kaw ku dënga kër la su la ca kenn bañee ñëpp lay bañ nga yëg ko nga ñàkk koo yëg wa mm-hmm. tabarakallah ñu am kër bu ñu am fulla mm-hmm. ñoo xam ne ay ju ñu ngi ñaan yàlla sëy bii yàlla yàlla def ci baat ay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu yore lañ ci doon doon ak dund ak dee ak wërsëg du programme du programme yàlla mi xam ne mooy ambassadeur u diine maami Ablaye mii ñu ku dem ci ko fonk nag da ngay la sëriñ lu baax xam nañ lu safaanu xam ne waaye nag yonent bi maamam am maamam na ko xam ña nga fa ñooy bokk def lu baax ñooy xëj mel ne que yàlla journal ci xam ci loolu tax ñu kon bu jubee raay fa jëf mooy dëkk bi ñëpp ñi gay journaliste wax sax fa neex ndax da soo joo nga yor sànni puudaroo bu demee fa la nu méridien ko rafet bokk si boppam xamalooy na am ci na ñu la waxul face à face yow dina nekk sànni ay faros dina raboté dina papier ba verdi la waaye dem na maam ni nga mel di xool ñëw ñëw leen nar na jëfi jàdd mooy defar ko di sant bu baax nag daaw bee li xew kilifaam yi teew wàllu mi ñaari cëri sëñ fa nee na mu ngi nuyu ñëpp waaleykum bi ci yaayam ju baax ji ak kilifaam yi teew c'est bon. nee na ngi wax ni moom miis moo fekk si woon soxna maam Bint. di yaayu maman mii ci kër gi ñu nekk dafa tolloog fukki at ak fukki at ak mi ngi ñi ne kenn at. musu ñoo ñu leen a teg di leen jubaate dem nañ ba bu ñu amee lu ñu jëndi Aziz danaan ànd leen yéen ñaar miis demal nga jëli maam Binta bu jëli jee maam ba pare ñu dem géejawaay fekk seen yaay bu ñu paree moom miis yóbbuwaat ko mu ñibbi mu dellu këram toog ndeysaan nee na tout le temps dafay wax ne moom miis maam Binta day dafa xamoon na du fi yàgg mosul xool ay jàngi doomam moom mii miis mooy def inscription yi mooy jënd fourniture yóbbu këram mooy xëy jëli xale yi yóbbu leen école mooy xotti bu weekend jotee mooy ànd ak ñoom dem ndeysaan dem nañ ba école bu ñu leen woowee def convocation woowee maam Bintu na ko maam Bintu war nañoo dem école da ko naan ah miss yow demal nee na mi ngi waat li muy wax am na seede te Abdou Aziz da leen di wax ne maman mii du mu duggee ci ay loxoom ba tey jii jaaxlu ko réeyul xale bu ragal a ngi da koy wax tout le temps maman bàyyi du wut lu neex nit ndax dafa bëgg lu neex nit ba ba dafa ragal ndaysan da lay ragal frustré nee day wax xalé yi ñom à chaque fois nday jaay ngeen respecté yépp mama nee fan ye dafa taxaw dégg mu naan leen duggu leen ci bir sol dal musique nako a ah, mama kon diga wax ko nako ah, a mama parfois mu wax ke na nako a ah, mama parfois mu wax di ñu ngi leen di seedeel ne xale bu baax la. jaaxalu ko wëriwu ko su àndeek nit te neexu ko mu ne ko sa ànd ak kii neexu ma mu daal di koy dakkal ñu ngi koy jiiñ nee na mi ngi koy sant di ñaan ci yàlla yàlla na mel ni yaayam jaaxalul ñu fi fekkoon ndax mbaax rek la xam ci moom nee na sëñ Babacar nii nekk na nekk na France di faju mook ilimaan mois maam Binta yor leen ci këram pendant 4 mois. musu la woote di leen seet wala muy lijjanti. te Aziz xam na ci dara. nee bu ko wóoluwul woon bés bu set mu woon. waaye da koo doy sëkk. moo tax mu baleen këram pendant 4 mois. ñu nekk fa. te ba mu dellu see fekkul dara ci sopp gi kon yàlla na mel ni yaay fu mu jëm yàlla fa yiwu yàlla jub yàlla bu mu am dara lu ko jaaxal yàlla na ci am yàlla jàmm ju sax ci barke rasulillah alayhi wa sallam yàlla na am njaboot bu barkeel amiin ñu ngi ñaanal lépp luy jàmm yéen ñi ko ngi di ñaanal sonal. ngeen jëf. Thank you.